waaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ah lii bi mën a may. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi. kuulun waasilun waasiun lahu bi maxnaani yàlla waxaan xas wi wasiimun wa wahaabun wasiyun ilaa xayri rabbin digruhu xan maa lahwi wafiyun karimun waaxidun waxduhu ataa bihi li si waana maala sul jawre birraxwi waliyun nabiyun lil baraaya rasulu man bihi li si waana saaxasa sulmi wasatwi widaadi li rabbi wal muxafa wa hisbihi wa man habahum wallahu li kaana bil afwi wa siqatu bi baaxin sirtu abdan lahu bihi xadiman li xayril xalqi bil muksi wa safwi أرو مرضا من كل يا دار يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إليه ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينتق بمده يمترئ أحبتي الدارين صاب نفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوه الكفار والكل جسأوا وسود على الأهدى مسابيح في الدجى وكل سجاع رأسس الكفر يجزأ وسود متى يقصد لهم سوء تجرؤ يبوج بان يبكي ويما تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى سهبه فمن ينسهم فالمدو مدو مخطئ abu bakrin siddiqu du sidqi wal wafa rafiqu nabiyil mustafa al gaara anba'u abu hafsin al faruqu sharwaahu naadirun bi tazza diinul mustafa is yuzasa'u afisa bi man baab naa faana zal hayaa lahu nuuru summa nuuru ni'mal mubawwi'u abu sibtayil muxtaari wa huwa ibnu ammihi علي على فختير نعم المجرأ أصحاب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ ناني يحب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختير ولا قواق منه نبذت لك عبدا لمولاي وحده خديما لمن أندرك كلا تلسنه nasaftu bina almayni bila qimaadihan li fardina la xulqin wana an wu daydanu nawaytu dawaama dikri wa shukri xaadiman li xayril waraani malasinul musayyanu nabiyun rasulun xayru abdin wa sayyidun xalilun abibun mislu laysa yu'lanu najiyun qaribun dhakirun wa huwa shakirun jawaadun karimun bil makaarimi yuxsinu naqiyun taqiyun saalihun wa huwa muslihun bashirun liman lillahi bil haqqi yudhinu nabihun adibun dhu hayaain muhazzabun nadirun liman bil kufri wa shirki yu'linu nasihun bila ghishin alimun muallamun nasihun bila ghishin alimun muallimun saxiyun bila man nin kalaaman yu layinu najibun ajibun naasibun wa huwa naasikun huwa al-aamiru naahi allasi l-xayra yudminu naqibun raqibun mustajibun musasabun masihun malaasun wa huwa maahin wa muhsinu nasibun xasibun du ataaya muqaddamun huwa annaasu wal miisaanu ni'mal mumakkanu nabiyun lahu saanun asimun mubayyanu huwa almustafa almuxtaar wa huwa almuayyanu nubuwwatuhu xabla albaraya qad injalat lahu sabqu xiina aljaddu fi ttiini yuxzanu najiidun majiidun muusilun man lahu intahaa muallan wa mifdaalun wa muxnin wa mu'linu jafaali wa ibqaa'i wa fawsi bilaa xanaa bi kawni xadimal Mustafa tatabayyanu nasihatuhu fi sirri wal jaari li badat bihi xaadali rahmaanu sitran yuasinu nawaytu ridal rahmaani fi xidmati liman ilaa xayri nahwi saaqa man laysa yudaynu nafaali siwaana binnabi laaw sada wasiqa ilaa xayri lazi yatakahanu نهى الواحد القهر عن العذاب فرادي ومسني أدبر ثم لين نفوت به أرضا أسائد أسفت عليه سلام خير مغن يمكن نسافته كلي من اللغو تهرت وسنته إن شاء ربي أبين نسهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى بي أمري ودار الموطن نويت بما الاختير سكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين كتبت وكلي فارق الذنب والشركا وقبل اشترى ربي الذي بعت تركا كلامي ونياتي وفعلي توجهت ilaa man kafaani suua wa durra wa shakka kafaani xafiidun maanihun jumlata alhida wali qaada ahbaaban bihim udhiru nuska katabtu waxati shukru rabbi muxaatiban liman hubuwan kalkali sasa danka liman hubuwan kalkali sasa danka karumta wa fuqtal kulla yaa xayra mursalin alayka salaatun tiibuha axjalal miska kashafta dujaa anna wa arsaqtana mahan alayka salaamun arfu yasdaril bunka kurubiya yaa miftaahu anni jalawta wa xablul idaasa saata wal jala wal ifka kasawta kama atamta zal xuri jaayihan wa min qablihi xallasta yaa xayra man fakkaa kasafta du jaaxal bi wa kulli xamaytahu bi hifdi alladi mahma staka mustakin aska kuusuka tasxiini bi hada busharatin wali xutta faydan axjala albahra walfulka kitaabuka diini wa waxilli wa muunisi hadaani bilaadi wa nafsi bi sakka kitaabun karimun min karimin mukarrimin kufiitu bil aadaa wa sanba wa shirka li mawlaaya hamdi wa anni maal kabla wali xaada faydan axjalal bahra wal wabla lahul hamdu wa shukru alladi lan tiyaa lahu huwa alwaahidu almugni alladi kassara alxulla له الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخجل الهدلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهر رب الورى جلا لك العلم والعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأسلام lakal fadlu yaa muxtaaru yaa sayyidal waraa alayka salaamullahi yaa man mahazullah la anta imaamu rusli xad jaa annahum talaaxawka fil israa'i wal kullu xad sallaa labista siyaabal majdi wal fadli wal hulaa wa fiika minal axlaaqi maa ajasal kullaa لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليث الذي حزبهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا ما الهدى خطايا بشير تدفه الفقر والمحلا لمن خاده جهل لكم ذات جرء عذاب شديد يورث الفقر والخذلا لك الدار أبغي من إلهي صلاته alayka mahal tasliimi yaa man mahal kabla alallahi man lii xaada bil mustafa sarha tawakkaltu abdan xaadiman la ara sarha alayhi i'timaadi raadiyan anu xaadiman li abdin bihi asra wa qad jaawasa sab'a alal mustafa xayril baraaya muhammadin salaatu alladi lii xaadama xalladal wusan alayka salaatullahi yaa xayra mujtaban bi taslimihi yaa man dal asla wal farha alayka salaama man lawul amru kulluhu kama bika lii xaadal masiyaati war rujha alaykum salaatun ma salaamin bi isbikum min alwaasi albaaqi alladi xalla darrata halaw taati laan laa yu jaarika xayru man lahu siqwatun xattoo jibul laxna waddaha hiyaazi bi man alaaka abdan wa sayyidan xaliilan habiiban qaada li dikrahu xataa xataayaahu fi barrin wa baharin taquuduni ilaa sukrihi mudtayyaban nafsa wal marha ajaibo fil barri wal bahri li badat bi kawnika maxdumi wali awsalan nafa hulumi wa irfani wa sayi sakiyatun liman bi kali xaadat tawalifa wa sharha hanai bima willahi anni ma utahu wa safa hayati man li xayri kafa sara allahuma ya hadi ya karim ya salam ya shakur salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlana muhammadin il mahdi il mukarram il musallam il mashkur wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaaman wa barakatan yaabitu fiha xayru abada لرب البرايا ودو خنا كلي بما اختير لي من غير موز ولا كلي لساني وأقلامي وقلبي وجثتي لمغن كريم نافع جل أن مسلم لنا أرسل المختار عبدا مخدما خليلا أبيبا فائقا جملة التملي له الدهر أمداه خديما مخاطبا ولنخاد في أمداه أربح الحل لك الموجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناسحا عليك سلام الله يا ماهي الجلي لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المرى جملة الرسل لك السر قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي قتني بها kitaaban asiisan bayyana alxaqa bilfasli lisaaniya walaw saalu abdan lahum bikum waaw daa toorooyi wa nafsi ma alfixli lahu dëhra niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jismaani wa kulli bila sukli laanta alxaliilu lib yaa xayra saafin wa sarwaaka lam yaxluquhu baaxina ma kulli يسورك مني حيثما كنت يا مهي فؤادي وروحي بالبشارات ذاتي يهد مساياك التي لا انتهى لها مديه الذي ألزمت النفس بالسعي يقيني يقيني تركم داي سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يميني عليها دين خط أوارضا بخدمة خليس المدينة زاهدي يسلي بتسليم عليك الذي نفت به خبدة منك الآدية بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رداء وشكر رافق الحب في الحي يسلي بتسليم عليكم بعالكم وأصحابكم باق أباني بالوحي yubashiruka albaaqi bi xatti karamatan wa in kuntu an ardil madinati saa nayi yuwajjihu rabbi kulla ma laa uhibbu li xayri bi kaddaarayni yaa jaalibal waqi yuwassilu lil baaqi busaaraati naafihin bi kaddaara yaa sa sabqi wal fadli wal wali yubajjilu kulli kullakal yawma ma xadin wa in shaa rabbi la urad darasa wani yuwakkidu kulli hablaw bi wa xidmati bi man qaada li xayral maqaamaati bi tayyib xarajtu bi fadlillahi mimma yuwabbiqu wa yanhoo li qawmin faaraqooni muwabbiqu xarajtu bi fadlillahi min kulli baatilin ilal xaqqi wal iimaanu billahi yarsaxu xasaa'inu rabbi futihat lii wa saasaat li xayril asaa duniyaa wa uxraa wa barzaxu xode shukra minni axsarafin wa basiran bil mustafaa yaa xayra haadin yu sayixu xarajtu ma almaaxi bi rabbi min al asaa wala yantahi naawi alladi yatabazzaxu xitaabuka yaa xayral baraaya sahaadati يؤمن كل يوم في السور ينفخ خدبت العدا عني وساسات من تخوا إلى خيرنا والكل قد كان يبلغ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي منه به فيك ينسخ خطيئاته هنمات بعد توبة لباق له عبدا إليه تعوق خش الهام yaa muxtaaru lillaahi xidmati halay salaama man bi fii ka at naxu xarajtu min almatruki billaahi wahdahu wa bayhi law bayhun bi laysa yufsaxu xuruji bi rabbi maaka min xable aksasin wayan xoole xayri laa li naawe mu babbiqu allahuma salli wa sallim wa baarik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sallam وسعبي عني أبدا واكتب له هذا دوره في هذه الأمداء لذة آمين يا باقي لربي خروجي ما دخولي بمنزلي ما قبله ما قد مدى من تسلسلي لو شكر أيضا بعد عمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا leman fadluhu baadin la daa di taaquli laqad jaakum qad jaana maadi an lakum min allahi dil arsi alazim almufadili laqad jaa fi alqurani ma dallana ala taqaddumika almuuti lataa almukammali la anta alladi utiita xidman nubuwatan وآدم بين الماء والتين ينجلي لكل من الأغيار فضل ورتبة وما كابن عبد الله عبد لدى الهلي لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاء المصطفى البر يعتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لدى العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وساجي إلى جناتي خير منسلي لكم رمت من ربي سلامي حسر مدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي لرب الذي راد العدال بجاهكم شكوري بعد الأمر دون التسلسل قد انصرفت حاجي إلى فاتح الرتخ wa inni la abdun wali jaada bil xidqi xilaami alaya dayn sukurin law hala firaaqi bila luqya sawil jawri wal fisqi xilaa dawil israaki li qaada kullama rajawtu wa inni doo sukurin alal farqi qulubu dawil udwaani siqat li gayrina kaabu daanihim wallahu li maskani yubqi xasat sukuura llahi sukuran mutayyaban uxaatibu xayral xalqi bil xalqi wal xulqi xadamta bi taqdimil ali ya rasulana wa ustal wulaaya naasiral xaqi bil xaqi xadan sala ayatin lakallaahu xannafat li xayri siwa man xaarahum lii min alxalqi xaartu biha alal xilaa waya junnatun بها سانن الباقي وعلى بها أفخي خيراتها كنزي وجاهي وعزتي ونلت بها كوني لدى الله صدقي خربت بها من منسل كان لي بها وارديت بالشكر بالفعل والنطق خررت بها عينا وللنفس تيبت وصلت بها لله ذي الفتح والردق xadallaahu haajaati bi man jaana biha wa inni biha abdun xadimun maal xitqi halimtu wa inni bil fuyoodaati mubdihu bi anna albadia al ajdaad daara yardahu halimtu yaqinan anna zal arsi qaadirun ala kulli shay'in wa wali daara mabsahu alayhi ittikaali bin nabi daa tawassulin عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه باسمك يا من في الخلائق يشفع هنائي بما في الله أني موته كما خاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك سلام من أداني وسأنني بكونك خلقا جملة الغر يبرع وعدت شفيعا منجيا ذا إخاسة بك الله لي خاد الذي دار ينفع هلومي وإرفاني بك الله خادها إلي فأنت المنتقى والسمع ذو علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداه مزاياك ترفع خيوبي جمت قبل لكن موتها wa kuntu bi maaxin lil ali atadarrahu hafawtu anil a'daai turran li waci man nafaahum li xayri sarmadan lastu adfahu halimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna almuqafa man xalaaniya yardahu zilaaliya safaha mujirun mushadidu li xayri hidan min xayri luqiya tashadadu سجيت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاتب من أن الهدى كان يرلظ ذور رسول الله لي خاد للمنى وقد كان أني كل سوء يشظظ ظفرت وبالآلاء إني مؤدس بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ سمعت وجئت البار في البحر خادما liman axjalal yaaquuta maa kaana yalfawu zalaami jalawul muntaqa qablu fantafaa la dal baxri laa alxallasil qalba yuxlidu la dal baxri laa alxallasil qalba yuxlidu duruufi maan wajjatuha qablu linnabi wa kullan bima faaqal munasaara yadadu danan tuhti waayi kullama rumtu bisafa wa rabbi li gayri saaqa ma kaana yabhadu dimaau alladi yanhu almuxafa dimaau man yuraw waa bi itaamin wa bil bisri yulaadu salaamu alladi yanhu limain salaamu man yunawwaru qalbun minhu warraynu yunkadu zuhuru rasul zuhuru shaabil muntaqa li yasununi wa yanhu ila al a'daa'i minni taafudu dilali ila jannati baaxin tawassaat wa kulli wa maali saana haamin mushaddidu yaqiini ilaahi wa kulliyati yuyi bijaahi rasulillahi man nahjahu uyi yadi wa lisaani ma fuaadi wa jussati hamaaha ilaahi anasan maahiyan xayyi yabussu imtidaahi jumlatan asan nabi من النفع وهو البار ذو الجلب والنفع يمين النبي فيها أتايا لتجداب عليه صلاة الله سلافي والهدي يسار النبي فيها خفايا لسانتداب عليه سلام الله كافي ذوي البغي يجاور كل خديما له به به سرت ذا خرب وخد كنت ذا نأي يسيرني كالآل والساب سرمدا ولإقاد سرنا بان غيره المؤيب يسلي بتسليم عليه بآله وأصحابه باق به فزت بالطيب يسلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاتبني ما قيد لي بمدحنه مديها عجيبا في من فايق الرأي يقول لسان الحال لي كن خديم من هما كان الأكدار بالله ذا رحي يقيني إلى جنات باق يحبني هداه وبالمختار كليتي يحيي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه الحروف بسارات الباقي أبدا ملكت بربي مغجل الموج واليم بمده الذي أنسى أسى الفلك كالخم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وولي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من وخاتبه بالشكر والحب ذا حسمي مزاياك يا كلي لدى الكل خجلت walakinaha jallat an ishari wan nasmi maqamatu xayril xalqi an xayri rabbihi muxayyabatun faltaqra an suratan najmi muhammadun il muxtaaru laa xalqa misluhu alay salaama man lawul amru kal hukmi muhammadun il maaruf maayin wa maanihun wa bil hissi maxsuusun masuunun anil wasmi مجيب مجاب مرتدا مهلك إدا مبيح ومبعوث إلى الهرب والهجم مضيء جلانا دجانا معلل مليح ومعصوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محلا أني بالنبي كل فاسد wasirtu bihi abdan qadiman bila xammi min allahi rabbil arshi abqi salaatahu bi taslimi lil mustafa al muxjilil yammi min allahi rabbil arshi abqi salaatahu bi taslimihi lil mustafa al muxjilil yammi allahumma bi aqi wajhi llahi taala al karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa basiru bi kulli harfin min hurufi hadihi al qasaidi al muxrajati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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لنا في هذا اليوم بركات شهر رمضان وافتح لنا أبواب الجنة التي وعد المتقون بهذه الأبيات التي أخذت من حروفها بلا إخلاق بلا إخلاق عنا أبدا آمين يا رب العالمين شهر رمضان شكر الإله بالفؤاد والجسد يسلم ما من عمر الشخص فسد هبات سلار سلاسي من الأكرم منقادة لمبتغي التكرم ربيع من يتلو الكتاب زاخيام به ويحيي رمضان بصيام رضا الإله عن سوي التلاوة رضا الإله عن سوي التلاوة لهم يقود الأجر والعلاوة من قرأ القرآن بالتعدب asamahu munsilu min wadabi diyaafatul xaari fi daarayni tunji fi ma min alaarayni amaanu man yatlul kitaaba lil jinaan yaxuuduhu wa huwa tayyibul janaan amaanu man yatlul kitaaba lil jinaan yaxuuduhu wa huwa tayyibul janaan naful kitaabi laa yufaariqul jasad wal qalba wa huwa muslimun lima fasad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 waab lii abwaabal jannati lati wuxidal muttaquun waab lii fiihima maa ashaa'u bila inxilaaqin anni abadan bi haasihi lwuruuf wajalha min afdali lburuuri walmaaruuf amiin yaa rabbal aalamiin bi hurmati shahri ramadaana shakatu rabbi adadal xalaa'iqi wa kaana lii wa jaada lii bilaa'iqi huwa al ilaahu al aadu al xaqu samad الراء في السماء من خير أحمد ربي لم يلد ولم يولد ولا مثل له اتخذت مؤولا رحمننا رحيمنا الإله حقا وقد بدت لنا ولاه ملك يا قدوس يا سلام بك أنت لغيرنا الملام دممت أفعالي لأفعال السحاب من يمنه يجري بماء السحاب أكتب اكتب له عندك ما لا يفنى من المنى يا مفنيا ما خفنا نويت كوني لك للجنان ولي أتبت نفسك الجنان ولكل امرئ ما نوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما أنزلت عليه القرآن العظيم المعظم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في شهر رمضان شهدت أن الله رب واحد وليس ينفعني أسن أو جاهد هبات الأرض العظيم السمد لي وصلت بالمصطفى محمد ربيت في تجارتي ربحا يفوق ربي خليفتي وجاري والرفيق رضيت عنه ووراد عني وكان لي بكرم ومن مننه علي ليس تنفد مننه علي ليس تنفد وإنني إلى رداء آفد دل الذي يظنني غير الخديم للملتفى الذي سيادة تدوم أسب باخ لا يسأل مصيبا إلى سوى درري فذهبا نفى إلى سوى جهة الواحد كل أذى وما نحاني جاهد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شهد الله تبارك وتعالى وأشهد الملال أعلى أنه سلب إلي شهر رمضان من عام مسس إلى الجنة وفتح لي بقدر عظمة ساته أبواب الجنة التي وجد المتقون بما أخذته منه بواسطة بركات حروف شهر رمضان شهد لي الله واسد الورى بوبي لي وبي صورا هاجت قصائدي قلوب سالم وليقود الله رسولي كلهن شهد لي الله واسد الورى بوبي لي وبي صورا هاجت قصائدي زائدي قلوب سالهين وليقود الله سولي كلهن رافقني الإلهام والتوفيق ممن هو الخليفة الرفيق رحماننا رحيمنا خليلي حبيبي المكسر الخليل منا ما خلقه أو يخلقه muxrin ilal jinaani kulli yutliqu damani yal baaxi li badri wa kaana li bihim wa ala xadri damani yal baaxi li ahli badri wa kaana li bihim wa ala xadri askuru bil harakati wa sukun wa li bihi fi abadin kun fa yakun nafaani wa li yaqaada suwara wa bi sahaadati asadal wara bismillahi irrahmani irrahim shahru ramadan sakatu rabbiya bi ni'mal baari kulli law dara bila idbaari hadaani allahu ma al adkaari bila muadatin wala inkaari raditu an rabbil waral qahari wa kana li fi leyli wan nahaari rabbi ya rabbul harsi fil ijhaari wa aksi xatan bila intihaari مددت في سر والجار بمخجل البور والأنهار ضيافة لله والمختار ليتوجد بلا استتار الحمد لله على الأسرار ساعة توبة له بلا, بلا إسرار ناجيت قبل بلا إدبار في السر والعلن نعم الباري واليت ربي بلا إدبار في السر والعلن نعم الباري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزار الشياطين وأعوذ بك رب أن يهدرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي جميع ما تقدم من ذنبي وما تأخر وهب لي ما سيت عندك ببركات شهر رمضان شكرت ربي عدد الخلائق موحدا له بحمد اللائق هو الإله لا إله غيره وانخاد لي إلى الجنان غيره رددت ما وجهه سوء الدلال رددت ما وجهه سوء الدلال مما لو وسانني أن اعتلال رمت سكوره بذكرك العسيس وكان لي بخرق عادة نسيس ملكني القرآن تمليك الجميل ولسوى ما اختار لي لست أميل دمن لي تكرما سعادة وخاد لي سرا وخرق عادة إلي خاد في المباهي الأحسما ولا يريني الدار من تعسما naajeytu man lii fataxal abwaaba bil bisri qaidan ila sawaaba wa barakaati xayrihi min jami suuri amin ya rabbal alamin bismillahi arrahmani arrahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima shahida allahu tabaraka wa taala واسد الملال أعلى أنه سلب إلا يسار رمضان من حام مسس إلى الجنة sakartu bi xalami muhtasiba walxatu li xayran kasiran kasaba hadamtu bil xatti bina mawti liyana waxat rafatu sawti radatu bil xatti mamata kulli man baarasani loo waxat raw saman rada makari liman qablu naha مدرتي من لي يقود المناق ملكت خط يدي بلا تساب والخط لي قاد بقان ذات ساب دمني الكريم للساب وجاد لي بمخجل الساب إذا كتبت اهتز حرس الملك واهتز بتسبيه كل ملك نابت كتابتي لدى للكتاب عن السيوف والرماع العتاب بلا إغلاقها هني أبدا آمين يا رب العالمين يا من على كل شيء قدير وجل هذه الأبيات أحب إليك يا عليم يا خبير من المكاتب وإلى جندك الغالبين وحزبك المفلحين آمين يا من آت يا من آتاني من لدنك ذكرا بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الأبيات فتحت أبواب الجنة التي وعد المتقون لنازمها بلا إغلاقها عنه أبدا وشهدت حملة العرش العظيم بها لنازمها والله على ما نقول وكيل وقد جعل ربي حقا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلي وصحبه وابلي اسمه min kulli suu'in wa durrin bilaa aafatin wala liqaa'in wala liqaa'i shay'in min almakaari wa abli shahra ramadaana haazaa shukri li baaxin saaxa man lam yahbudaa li xayri durri wajaati abadaa hadiyatul lay tawajjat liya wasilatan lii wa yusafi suliya raditu an rabbil bariyati waxan nabi wa man xalaani lam yuhan radali xayri jeetil makaariha muxnin xadirun la yakunu kaariha man lakani alqur'ana baaqin an sala bi jaay raaqin li safinu sula dammani aljamilu lil axyaari bila masaqatin wala axyaari أسأله كون فؤادي وطن كتابي عبدا خديما ضاقة ناجيت به سنين واستجاب للا مكاسفا عن القلب حجاب هدى وللهدى فلا أدل إن شاء الدهر ولا أدل ولا أدل أقول موقنا بأن ربي قد ساد خربي وساد حبي سببت ما بالله لا يليق لغيره وذلك الخليق أشكره على فراخ الكبدا وعزمتي من كل ما لم يعبدا وغيره من الشهور وسف الجميع لي من كل آفة وكدر واجعل واجعل الأبيات التي أخذتها من حروفه كشفا ونورا ويقينا آمين يا رب العالمين bismillahi rahmani rahim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa abli shahra ramadana haza شكات ربي وربي أن يفيد وغيره بغيره ليس يفيد هو الإله لا إله غيره وانغاد لي في كل شيء خيره rajawtu xablu waa xaqar raja waxaada lii fi kulli shay'in maxraja rumtu ridaahu wali xaada rida wali xaada bi ridaawul xarada malaktuhu jumlata ma bihi yaliq wa innahu bil hamdi wa shukri xaliq durrim ma bi ma wi wa ma maha rabbul wara bila subuti nimmaha ajaabani bi ramadaan al akramu ija ajaabani bi ramadaan al akramu annaafiu l muasamu l mukarrimu naajaytoo siniina za imaani bihi wajaadalaya bil amaani hadiyati min wadatni wa kafat maa saani maa fuyoodin wa kafat asalu bi axda saari al azim xabulawo sukriya bi durri nasim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 Tawfekh ju rëy